auzu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim assalamu alaykum wa rahmatullah mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen siyaar baax ci seen seen bi di noob yu wér euh fi xam dañ fi indi ay noob dañ ko def ay mujarabaat ba mu leer ba woon ñu door ko indi ci seen bi di leen ko jox di leen ko baaxee waaye bala ñu indi secret bi la indil ñoo ngi lay ñaan nga abonné wu yow bi nga xam yaay door jot ci chaîne bi ñu lay ñaan nga abonné wu ci chaîne bi partage vidéo bi vidéo bi inshallah tay ñu indil la secret bu am solo muy képp koo xam ni dafa nekk soxna soxnaam ba pare diggante bi desee neex wala muy mu doon ngoro benn jigéen su doon def kenn ñëw di ko yàqal wala di jëmaale ak moom daal kon ñu bëgg nangu sangu soxnaam di ci mel noonu su defee lii rek incha allahu rabbi sunu waroom dina ko defal tawféex ba mu mucc ci yooyu nga xam ne ndaw si da koy gën bëgg saa ne bu ko gisu sax day am problème aay yi ñu lay bëgg ngay bind aay yaa ngi koy bind ci ñaari fooy nga koy bind ñaari kéet yaa ngi koy bind bisu àjjuma waxtu euh, waxtu midi waaw boo ko bindee nag yaa ngi ko war bind ci àlluwa bo paree nga raxasee ko maaqul wirde ak safaraan lal ci tuuti miska ben nga sango ko ben bi nga njëkk ki dang koy sango dang koy sango benen bi mom ci kéet nga koy bind manam bi nga bi nga bi ngay bind ci kéet bobu dang koy tak waye bi nga bind ci alu bi nga raxasee ko maaqul wirde ak safaraan lal ci miska bobu mom dang koy sango inshallah rabbi soko ko bu neexee sun borom soxna soo ko def jigéen ko ko def dina la topp faw te kenn mënta yàq seen diggante li nga war bind moo nekk ni bisimilah rahmaan rahim wa min al naasi man yattaxisu min illahi andaadan yuhibbunahum ka hubbillahi sina amanu ashaddu hubban lillahi walaw yara allasina zalamu is yarawna alxasaaba an alquwata lillahi jamian wa an al asadidul ومن خاف من من من موزد جنا جنفا وإشما فأصلح فأصلح بينهم فلا إسم عليه إن الله غفور رحيم su ko defee loolu ñu la limal loolu ngay jàng loolu ngay tari ba ci ba ci fasa yakfikahum allahu wa samiul alim wala hawla wala quwwata illa billahi aliyil azim wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim su ko defee nga door koo utiliser def ko comme ni la ko waxee nga raxase ko mal wit ak safaraan laal ca miski sangoo ko benn bi da koy takk insha allah rabbi boo àggee fiñ bind fulaan fulaan fi bind fulaan bind fulaan a tax da fay dugal turu turu ndaw si ak turu yaayam daal di dugal sa turu yow mi nga xam ne yaay sàkku ak sa turu bàyyi دادي كونتيني بالمحبة دائمة كونتيني باني آي جيحي إن شاء الله ربي فلان بي موي نونو فوقنو لن دفع سين بي فوقنو دفع فلس بي موي في فلان بي ديك فوقنو إفانسي فلان بيك بنت فلان على فلان تي ابن فلان بمحبة على فلان تي ابن فلان بي فوقنو لن لك دوك إفانسي لكما سيتي فلان بنت فلان على فلان تي بنت ابن فلان بي. da nga def sa tur ndaw si santam sa tur turu si santam ak yaay ma santam sa turu yow mi sàkku ak sant ak sa yaay ak santam incha allahu bi kon tey mbokk yi lii la leen andiloon ci seen seen di leen wax ngeen gën di woy di abonné wu jërë ngeen jëf di leen abonné wu yi ngir ñu mën di di leen ñëw di leen indil yeneen secret yi xam ne yu wér la waaye lépp aju ci wàllum noonu.